Euh, ànd ak sous-préfet ak gouverneur pour ñu ñëw xool euh, bureau de vote yi nga xam ne ñu ngi koy installé fii ci Touba pour que dimanche ñu mën a voter ci jàmm euh, xam nga Touba nag ci wàllu élection daf ci am Euh, conditions yu xaw a particulières yoo xam ne fu ñu jaar ñu jël ko parce que boo ko comparé ak yeneen dëkk yi li ëpp ci bureau de vote yi daanaka juróom-benn bureau de vote yooyu jël juróomi abri provisoire la donc dañ koy teg ci bërëb boo xam ne bii bërëb bu négandiku la rek euh, donc loolu moo tax mu xaw a gën a compliqué parce que fii nii ci euh, maanaam ci ci yaay gi la ñuy voté donc yombul yombul organisé moo tax également ñu waxoon gouverneur mu taxawu sous sous préfet pour que lépp mën a jaar ci yoon manifestement matériel bépp ñëw na campagne bi moom lépp ñëw na depuis le 10 février donc euh, agent de sécurité yi donc police essentiellement ñëw nañ Euh, déjà depuis démb kon moom actuellement yor na jumtuwaay yëpp pour déployer euh, nit ñi ci ci terrain bi déployer matériel bi ci biir ci biir bureau yi yaakaar naa ne déjà dina ko commencer tey matériel lourd bi tey tey ci ci aljuma ji continuer ko peut-être bu yeggul samedi samedi ci ngoon ñu teg matériel bu léger bi comme ça dimanche bu neexee yàlla wala huit di jot fekk bureau yi war a mën a tàmbali am nañ yaakaar ne euh, loolu bu ñu ko defee élément de sécurité taxaw nañ ñuy woo population yi nga xam ne ñi dañuy voter problème rek mooy ñi nekk ci bureau de vote yi te defuñ fi dara parce que bureau de vote boo fa nekkee c'est parce que da nga war a yore sa këyit war fa voter donc boo ñëwee aussi il faut ñu comprendre que ñi nekk ci bunt bi nekk ci sécurité war na laaj ndax fii ngay voter nga wane sa carte boo voter pare it comme li ñu jox comme instruction mooy ku fi voter ku ne bu paree boo wane ne voter na na génn bureau bi. bu bëggee dem waxtaan dem waxtaani feneen fi du waxtaanukaay maintenant euh, yaakaar naa ne bu ñu ko defee politique yi aussi dimbali ñu parce que am na ñi yoo xam ne ñii ci euh, parti yi li ñu bokk ñoom aussi il faut ñu xam ne du ñu nangu en tout cas benn politique ak parti bu mun a bokk di ñëw di bi loolu moom joxe nañ institution yi c'est c'est ku ci am carte mandataire am nga sañ-sañ accéder ci bureau yi waaye même loolu sax am na comportement boo xam ne boo ko naree am ñu génne la ci bureau yi te loolu aussi valable na wax naa ko également même pour yéen ñi yore également carte de am ngeen droit ñëw dugg ci biir mais ngeen xam ne rek da ngeen di ñëw pour liggéey c'est normal mais ngeen liggéey rek def également li ñëpp yi def comme sa vote bu ñu ko defee cinq euh, cinq candidats la war na mën a gaaw warta am ay attroupement et puis ñu xam ne nag aussi comme je dis euh, woote la rek woote moom yàgg nañ ko def ren mooy suñ fukki yoon yooneel ak benn ñuy organiser élection présidentielle. tiituñu dara c'est-à-dire que dañuy jël suñu matuwaay xam nga bu fekkente ne dañoo ñëw daaw bi ñuy def mille 2017 élection kenn ku ne gis na li fi am xam nga aussi euh, nit ki bu jàngee dara te mënu koo tari amul njëriñ. donc gisoon nañ li nga xam ne lii moo fi amoon donc ñu jël suñu matuwaay ne bii pa nañu fexe ba li fi amoon dootu fi am donc indi nañ fi ay takk der yu doy waaye du loo rek parce que mën nga takk der doy sax bu ñu organiser aussi même chose da fi am moo tax nee naa de vote yi ku ci yorul carte électeur bu mu fi dugg xam nga déjà loolu bokk na ci lii ni problème ku wote ba pare amoo loo fi lieu de vote yi déjà lieu de vote yi bureau de vote moom c'est encore plus restrictif lieu de vote yi boo fekkee amuloo carte électeur boo xam ne bii daf la war a yóbbu foofu defuloo fa dara donc loolu déjà c'est quelque chose c'est la première chose bi ci des boo wotee ba pare war ngaa mën a génn dem doxi leneen parce que ku fi wote amatuloo fi def parce que xanaa xaar ba ngoon ñu ñëw bu ñuy wàññi sax bu ñi wàññi du ñëpp la ñuy woo dañuy wàññi rek ñi nga xam ne ñëw ci bureau bi ñoom ñoo fi war ma ne donc ku wote dem ki la toogal fekkee ne da am koo far ki la toogal moom mu ngi ci biro bi moom dana xam li lépp li nga xam ne moo fi ne nee naa sax mandataires yi bu ñu ñëwee bu fekkee am nañ comportement boo xam ne bii normalul am nañ sañ-sañ leen ci lieu de vote yi. déggoo ma ne la boo jàngee dara ba mokkal ko dafa ma servir la leçon ñun bu doon suñu sago bâche sax dootu fa am cest dire que peut que élection bii di ñëw mën naa du am du am mu am leneen lu gën bâche yi parce que tamit bëgg nañ aussi ñuy wote Touba di wote ci condition yu baax condition yoo xam ne day ñëw sereinement comme ni may wote sama dëkk donc loolu moo ñu gënal mais bon des fois peut-être boo xoolee Touba y presque juróomi téeméeri euh, donc peut-être day jël temps parce que même lii sax état da ciy def lu bari actuellement ci ci dépense peut-être que danañ trouver yeneen solution pour gën mën a voter euh, récemment am na ci ku ñu defal benn suggestion très intéressante peut-être que bu ñu amee temps maanaam élection bii di ñëw danañ ko organiser noonu comme ça loolu yara moins de problème waaw lii ci suñu liggéey la cest dire que lu tax ma teel a ñëw Touba parce que normalement sax ci bi dama naroon a ñëw suba euh, su ma dafa xaw a particulier ndax li mu am ci abri provisoire loolu rek moo ko waral mm. li mu am ci abri provisoire yeneen dañuy wote ci école yi amoo wote ci école yi amoo benn crainte classe yi xam na nu ñu toll nit ñi xaj nañ fa euh, nit ñi mën nañ fa nekk en toute sécurité amul benn problème mais fii abri provisoire yi moo tax mën ne naa teel a ñëw suñu ñëwee am na loo xam ne lii gis nañ ko fi comme erreur il faut ñu rectifier ko waxtaan nañ ak police euh, wax nañ leen également liñ ci xalaat ne leen lii bu ko defee parce que mbir mi du alkaati yi bari nañ déedéet mbir mi li ci am solo surtout mooy alkaati yi ñu ngi fi waaye nañ ko bu ñu ko organiser dana tax kenn ku nekk mën a voter te nit ñi xam ne voter rek moo leen indi kenn ku nekk li nga waroon a wax say militant wax nga leen ko ba pare wax nga Sénégalais yi li tax ñu war la woteel léegi Sénégalais bu jóg pour wote si na ñëw ñu may ko accès mu wote bu wotee ba pare defutul dara ci biir. mu dal di génn. dinaa dem feneen danaa dem feneen bu subaa am na bi euh, au moins ñaari ñaar région yoo xam ne danaa ko visité suba. de fii lieu de bi ñaari ñaari ñaari bureau cest à fii nii am na aussi école bi mais quatorze bureau de vote moo fa nekk danañ ko utiliser cette am na peut-être ñooñu dana nekk ci condition yu tane yi mais danañ ko danañ donc fii globalement on a. 73 73 bureaux dont 14 fële ci école bi.